Babacar Fall su waxee ne député Ousmane Sonko député euh, Maodo Lamine Diallo yooyu nañu waa Sénégal ndax dañoo maandu woon ci euh, vote bi loolu mais mënees na ko analyser tamit ci beneen angle mooy député DG Fall ak yeneen député yi nga xamante ne bii dañoo nangu mooy que ni dañoo mettre Macky Sall devant ses responsabilités mooy que ni bi Sénégal amee jafe-jafe naam ñun opposition lañu mais taxaw nañu ci sa wet jàkk ànd koog yow jàppale la jox la moyens yi yëpp kon njaaxum lu ci am responsabilité Macky Sall la jàpp naa ne sax position bi nga xamante ne bi mooy position wu Déthié Fall moo gën a sage position wu Ousmane Sonko ak Mamadou Lamine Diallo selon sama analyse man Babacar Fall nag TFM day xalaat rek nit ñi di xalaat donc bu neexee moom mën na xalaat lii mais man dama xalaat ne mettre gi ñu mettre Macky Sall à l'aise jox ko jox ko jumtuwaay yépp ndax jàngoro la joo xam ne kenn amu ci woon solution ci àddina bi te yow yaay njiitu réew mi ñu ne la lépp loo mën a def ci ay jumtuwaay ngir saafara jàngoro ji def ko su ci amee ay njublang ñun wàccoo nañ ak moom donc parti réew mi Déthié Fall wàccoo na ak décision bi nga xamante ne bii moom la jël parce que jox njiitu réew mi ay lenge yum doxale taxul nga wax ne njiitu réew mi lu ko neex mu def dañ koo joxoon ay lenge ci confiance ngir mu teg jafe-jafe yi nit ñi di dund sàmmoonteeg ñoom ci dund bi gis nga barki dee moo njaay biñ ko génnee Déthié Fall nee na dund bi mille francs yi dafa tuuti kon dèjà moom dèjà joxe na ci dèjà kaddu donc luñ la jox jox tamit lenge ak jumtuwaay yi saa boo defee loo xamante ni bii jaaduwul nit ñi dinañ ne la lii jaaduwul mais nag je pense que position bi gën a sage daal mooy bi ñu jëloon mooy wàccoon teg lépp jox ko lenge yi jox ko lépp ne ko doxalal boo doxalee a ah, sénégalais yëpp di apprécier ni nga ko doxalee sénégalais yëpp a ngi koy gis su fekkee jaar na yoon sénégalais yi dinañ apprécier bu fekkee jaarul yoon aussi sénégalais yi dinañ apprécier mais ñun daal jàpp naa ne ak position biñ ci am moo gën ndax wàccoon nañu ak Macky Sall yàgg naa waxoon ci sama benn ojo ne Macky Sall est devant ses responsabilités Macky Sall est devant l'histoire lépp lu mu def ci lii di coronavirus gestion bi ci ci responsabilité la nekk su baaxee ci responsabilité am la ne su bonee ci responsabilité la nekk soo amee ay njublang aussi moom mooy rendre compte moom mooy répondre au Sénégalais